Euh, Cheikh Omar lañ may wooyee Cheikh Omar Diop laa tudd euh, Dakar nag laa bàyyeekoo mais Saalum laa juddoo fii laa yaroo ci benn dëkk bu ñuy wax ci kat Kër Ndongo gin commune bokk ci commune bu nga xamante ne ni mu ngi tudd commune bu Latmingué fa laa dëkk. waaw dañoo ñëw rek comme nu ko ñëpp di defee parce que ñun. lu gisuñ xamuñ keneen ku dul Baye Niass parce que moom moo ñu fekk ci li nga xamante ne ni xamuñ ko woon wax dëgg fa yàlla mu xamal ñu ra tax ñu ràññee aussi lu bëree bëree bëri waaw ba tax na wax dëgg fa yàlla bu wootee moom lépp luñ muntoon nekk dañ koy jàpp dañuy bàyyi lépp luñ jàppoon dañ koy bàyyi ñëw wuyu ko dëgg fa mm-hmm. waaw xam nga na moom heure goo fi ñëwee xaal bu bees daf lay dugaat. wax dëgg fa yàlla heure goo ñëwee rek da fekkaat beneen xaal bu bees bi nga xamante ne nii daf lay branché ça veut dire que ne am na li nga xamante ne nii wax dëgg fa yàlla kenn du ko laam-laamee mu ngi fii nii di si na mhm. ñu ngi koy yëg gisoo nu ñaxee xanaa tooy xepp kontaan rek mbégte rek barke Baye Niass jaajë waaw Sénégal nag li ma fi ñaan yal na fi yàlla dolli jàmmu yal na ko fi yàlla saxal parce que maam yi liggéey nañ ko fi te jàmm rek moo moo gën ñëpp nañ booloo bokk ndey ak baay di demlante xam nga di lépp daal nañ booloo daal nekk benn te jàmm rek sax fi quoi.